mbokk Samagal TV mbokk internet ñu ngi ci édition CEB fii ci Esplanade Stade Amadou Barry ma taxaw ak waa parcelle ba léegi kilifa yi charnal. waa maa lay delloo ziar. tur bi tur bi Iba Sarr la. maa ngi dëkk parcelle fii waaw. waa ñëw toj Adam. ak eh, exposition bu doy waar. oui dëgg la mm. oui di kontaan seen interview bi ngeen di def vraiment di leen remercier bu baax a baax. waaw euh, tey nga ñëw euh, Sepp ñaata nga ñëw Sepp. waaw bii mooy sama deuxième année quoi. waaw waaw ñëwoon naa daaw si laa joxe woon Père Monia Yirim Sow affaire yooyu. ah Yérim Sow yaa ko maa ko joxoon père Mon Ñaag si daaw ah. waaw si set. maa ko juddul woon joxoon ko Maguette mu jox ko Jaw Jaw joxaat ñu ko quoi après si laa ko joxe per Mon Ñaag mu jox ko ñàmbe borom tax. ci waaw waaw yaa juddul Yérim Sow waaw maa juddul. léegi nag looy teg di. <laughs> non day ma waar noonu sax. no mais danga nga yow da liggéey ci élevage bi doy waar yow. non élevage bi xam nga rek. parce que euh, yoo xam ne dañuy jógee say loxo. xam nga waaw te xaw ma la woon. non dëgg la. Euh, xar bu mel ni bi ma kii yor. as as waaw as waaw petit maalo. muy pe muy pe waxuma petit maalo bi ah, ndaanaan. waaw ndaanaan doomu mais Yirim Sow bi ci ñàmmee euh, Bésir Thiawane Mar. nekk xar bu am hauteur. nga yoroon ko. ah Yirim Sow fu mu jugee. non Yirim maa ko ah. ndax boo xoolee sulker avant ñu ko jaay Serif sama kër la nekkoon. si la jur ay Yirim Saw. am yenen yeneen femelle tamit yu fa jur quoi wa mais après si ko jox Serif ci lañ ko jox Serif mu jur mu jur ay ay moise ay ñom ndanan bari na champion yu mu jur daal Sulker keur Moussa Diouf kaas moko moo wa mu jox mako ko ba muy am deux mois et quelques trois mois max la wa dama ko feral rek dañ ko feral rek jox mako wa ma téye ko bam am ay 8 mois yoy ñu jox ko Serif ñaa la ba tepp wa ñu jox ko Serif ñaa quoi suñu grand Serif léegi mu dem bàyyi fa euh, Euh, femelle bu oh, kii judd ci. waaw yirim avant moo dem fekk ñoom yirim judd nañ ci ginnaawam. quoi si la ko joxee màgget mu jox ko jaww après tourné waat ci élevage quoi. ok léegi yirim saw euh, nga teg ba mu am euh, ma am dafa fer ma jox ko màgget siise mu jox ko jaww. mixa jaww mixa waaw jaww mixa quoi. après si la doxaat ba waat ci ñu ñu jox ko permoon ñaa quoi. Ah, ah, waaw après ci ñoom yéen yéen yéen ñoo ko jox permoon ñaa. Euh, tey nga ñëwaat euh, mais ma gis ni yow da ngay da ngay damay li ma gisee sa liggéey daal mooy yow da ngay togg muy ñor ngay jox. non man moom élevage crème qualité rek. waaw ah, waaw ndax ndax boo xoolee ñi ma indi woon euh, si adam bi indiwu ma leen sax yenn yi. Ah. waaw ndax ñii dañoo fekkoon ñu amoon ay naissance moo tax indiwu ma leen. añal bi ñuul bi ñëwoon na Adel. waaw kii ñë waaw kii ñëwoon na waaw ñëwoon na. moom mbote la woon quoi. Ah, waaw tëng la woon daa tëb woon sax. moom wàccee na moo jur mbote bi. ñu ngi nii kan ak euh, kii doomu Papa la. borom korni yi. yaa ji doom yaa ji fii la. bu jaw mooy ah. espoiru jaw indi woon kii ah. mooy seexam. keneen ki doomu Buur Saalum la. ki doomu Sulker la. Buur Saalum noir blanc. waaw añalu ñebe bi quoi. waaw waaw ko ko ko kii Bakary moo ma ko joxoon Bakary bu yor Buur Saalum. ah ok moo ko ci moo ma mbote quoi. moom ñaata moo. am na léegi dugg na onze mois nii. dugaloon naa ko si añeel yi sax si océan grand jabel moo may tëb si ah, océan waaw ah, sama grand bu baax la quoi mais xam nga yow foofu dama gis ni da ngay da ngay temps yi euh, da ngay laal fu nekk. non bu ne élevage kerem ak qualité la. waaw ndax ñun xar bu wëree ni kii avenir la xar mu ñëpp di dégg la dañ koy jënd mboote xaar ko. waaw xam nga xar bu toll yenn âge doo ko mën jënd ndax millions yi ñu leen laaj day bari waaw mais boo ko teelee jënd muy nekk yenn yenn ah. nombre de millions yi boo ko mënul jot bu dëgëree tuut doo ko jot âge bi nga koy jotee quoi waaw kii doomu papa la kii doomu ndaanaan bi ma jox ah, aas la waaw doomu ndaanaan la kii doomu papa kii dugg na 4 mois léegi nii am na 4 mois waa kii mu ngi ci 2 mois doomu papa la yaay doomu sulker kii papa mooy sëtu Abdou Fall bu newoon si pa Abdou Fall. macha allah waaw macha allah. bi doy waar nag ma fekkoon Adam moomay kan. kii doom albaraka la. waaw albaraka mooy maal la pilibo boo waaw bu ameen Ndiaye quoi mais temps yii la daanu woon na. mi moom. moom dugg na ci cinq mois. cinq mois la dugg nii quoi cinq mois. instant bi moom yaa ngi maal kër moom moo war a ñëw. moom moo nekk relève bu war a eggal liggéey bi nag. waaw vraiment nag gars yi sonal nañ ci mais. xam nga mais da nga bëgg waaw dama ko a xaar quoi. est sa jeune maal bi. waaw jeune mâle bi. non bi def transfert bi. waaw bay def transfert bi. boobu moo ngi soog waaw moo ngi soog a juddu noonu quoi moo ngi soog a judd noonu. dama rappel bi xoolal. kër kër maas ma ngi def sama affaire bi maa ngi dégg gars yi di ko lam-laame ci non dëgg la dëgg la ni ci état yi non dëgg la dëgg la boobu lay soog a judd xamaguma la quoi non dëgg la dëgg la dëgg la mais dëgg non moo nekk nii moom laay doon si adam bi adam bi ñëwee le pilibo laa ko tuddee le pilibo waaw mal jeune mal le pilibo gaan champion non ñoo ngi takkal ñoo ngi nii di takkale rek bëgg mel ni yéen xam nga yéen ñoom yéenee borom ruq yi non kontaan nañ yéen a ngi wane di gis di rafetlu seen liggéey quoi di gërëm tamit ñu jàpp ci élevage bu baax mais kontaan nañ waaw waaw ñu leen kontaan ci yow parce que jeune nga mais liggéey bi ngay def dafa dafa dafa ci yoon. non dëgg la mais élevage moom jarul naxanté qualité macération rafet tar lepp ci biir ngay liggéey waaw. xam nga amna combat ya xam ne da koy teel a tëgg ba muy ndaw rek sinon bu dëgëré do ko mëna ko liggéey quoi waaw do ko mëna a liggéey. jox numéro bi adresse waaw liggéey numéro bi moy 77 016 43 91. parcelle unité 1 numéro 3. waaw ñu leen remercier bu baax a baax a baax. kay ñëwal boo ñëwee si daara ji ma jox la. am na yeneen dañoo am naissance sax moo tax mënu maa jël deux box quoi moo tax. wala nga joxal ma duud sax benn gaa mu nekk tapon xar bu rafet rek ah, bu ñëwee ma jox lu doy waar sax. duud il faut gaa yi jox la. non du boo ñëwee ma jox la lu garaaw kay. yàlla waaw.